maintenant yéen ñëpp jot ngeen information bi am na beneen nit ku ñuul koo xam ne dañ koo dóor bal mu dee ci réew mi xamaguñ ban nationalité la loolu dinañ ci ñëw moo tax sama vidéo bi ma bëgg def tey foog mu wax waxtaanu awra maanaam dina laal tuuti ci affaire u kooy képp koo xam ne bëggoo déglu may wax ci awra wala ci affaire de kooy maa ngi lay ñaan li lay war a sooli puusal sama vidéo nga jàll tey parce que tey kenn bu ma ko ñaan du ma maye ci kàttanu sunu borom dafa am sujet boo xam ne sujet tabu la ñu koy tuddee gaa yaa ngi koy ngurumtu ci kër yi di ko ngurumtu ci salon yi man dama koy génnee ci pénc mi pour samay rakk yi nga xam ne ñu ngi ñëw ak ñu nekk Sénégal wala Afrique bu ñuy ñëw ñu xam ni ñuy ñëwee ñun réew mi ñëwuñu fi pour wane wante gudd kooy wala rëyle kooy ngeen jéggal ma ci kàddu gi dañ fee ñëw pour liggéey tubaab yi dañuy jékkee-jékki rek ciblé benn neero dóor ko bal mu dee ok mu am benn enquête bu làqatu ci ginnaaw ñëpp di ngurumtu naan tubaab bi dafa raciste dañoo bon lan la ko def lu tax mu dóor ko bal sama gars yi kaay leen ñu waxtaanee ko waxuma nan ne dóoram bal moo gis ci réew mi dafa nangu jabaru jàmbur wala dangaa nangu gelu jàmbur déedéet waxuma yi na nangu jabaru jàmbur wala nangu gelu jàmbur raison la pour nit dóor la bal déedéet mais dama ne dix pour cent yi dix pour cent yi ñun xamante nañ ci suñ biir on sait dix pour cent yi maa ngi leen di waatal ci yàlla ne leen tubaab xamul li ñu xam ñun jékkee-jékki fondé ak nit ki lu ma depuis bi ngay am 9 ans ngay ànd ak moom projet de mariage carte banque lépp ngeen teg ko ci table ji nga dem ba am yaakaar benn neero bo xam ne négro di merde lañ lay tuddee bi ngay dugg ci réew mi ñoom jàpp nañ ne indaale woo sax dàll yu baax nga ñëw bëgg a briser seen menage yàq seen couple yàq seen vie wala nga dem fekk famille boo xam ne euh, yaay ji mu ngi investir ci doomam xaalis bu dul jeex mu bëgganteeg yow parents yi bëgguñ nga di ko forcer di ko génnee di ànd ak moom parce que nee nga yow koy bu rëy nga koy jaay jaay maa ngi jégalu ci kàddu bi foog ma wax affaire bi pour ñi comprendre comprendre nga jël jabaru jàmbur wala gelu jàmbur di ko jaay jon bu rëy moom mu jaay la agaawun parce que tubaab yi ci bëri ñu ngi rey ay neero reyuñ leen par hasard histoire bi làqatu ci ginnaaw ñun xamuñu ko lu leer laa leen di wax ñun ñëwuñu fi pour jaayante jon bu rëy dañ fee ñëw pour liggéey wàcc ñibbi parce que réew mi dëkkuñu fi dañoo ñëw pour liggéey nañ leen conserver suñuy jon lu jon bi rëy rëy lu mu am am puissance nañ leen ko conserver te bàyyi concours jon bi ci réew bi nañ leen ko képp li may wax je parle en connaissance de cause tubaab am na yoo xam ne moom du ko toloore du ko bàyyi mu sedd lu leer laa leen di wax tubaab du ko bàyyi mu sedd nga ñëw bëgg a briser adunaam yàq ko tubaab day làqatu ci ginnaaw mercato bi téye a gaawun rey la tëdd prison jaral na ko ko rey la ba pare tëdd prison jaral na ko ko waxuma nag ne rey ci réew mi yëpp dangaa nangu jabaru jàmbur wala dangaa nangu gelu jàmbur parce que quatre-vingt-dix pour cent yi xale yi koo ci laaj mu ne la tubaab yi nañ toog parce que li ñu yor réyul dijjul baaxul slogan boobu a ñëpp di doxee wala boog majeure partie ci ñoom ku ci bokkul nag sa yoo newu ci ñi may waxal xam nañ seen bopp jon yu rëy la ñuy jaay euh, tubaab yi ak di n'importe quoi di nangu seen i gel aka defi affaire tubaab yi yor seen i ak gaawun leen ko ak gaawun matin midi soir